الغريب والعزيز والمشهور والمستفيض والمتواتر الأول المطلاق فردا والذي له طريقان فقط له خذي واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه قوم يساوي المستفيض والأصح هذا بأكثر ولكن ما وضح حد تواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم والغالب الطاف على الغريب وقسم الفرد إلى غريب في متنه وساند والثاني قد ولا ترى غريب متن لا سند ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر وما رواه عادد جم يجب إحالة جسم اجتماعهم على الكذب فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود والقول باثني عشر وعشرين يحكى وأربعين أو سبعين وبعضهم قد ادعى فيه العدم وبعضهم عزاته وهو وهم بل الصواب أنه كثير وفيه لي مؤلف نظير خمس وسبعون رووا من كذب ومنهم العشرات ثم انتسب لها حديث رفع لليدين والحوض والمسح على الخفين ولابن حبان العزيز ما وجد بحده السبيق لكن لم يجد وللعلاء جاء في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 وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر ويطلق كون ديفنا جيل المشهور فوف فوفا نيوان ويطلق ديفنا جيل المشهور باتو مشهور ما موي لو سيو للذي نيل حديث بيغا خامتاني اشتهر سيونو في الناس تي بير نيت من غير شروط تي امول بن شرط بو خامني توتبر ديف نكو خلام من غير تي لو امول شروط اي شرط توتبر يوني خلام مام يوني باي خل ا أه، كون ا أه، ليغا خامتاني مانام موم لا واخ bu boba dañ nan effectivement amna ay hadith yo xamantene dañuy siiw kon hadith bo xamantene mashhur la en réalité bu fekkente ci istilah borom xam-xam la rahmatullah alayhim mën na nek hadith bo xamantene day wér mën na nek hadith bo xamne dafa hasan mën na nek hadith bo xamne dafa daif mën na nek hadith bo xamantene dafa am ay càllale maanaam manam manam manam manam de toute façon manam hadith lay wax doon bo xamne dana ñetti tialale ñetti nit au moins dina nek ci ben tabaq manam ci niveau bu nek ci niveau chaîne de ci niveau isnad bi amma bu fekkente ne loolu moy li nga xamantene mom lañu xam ci borom xam hadith yi rahmatullah alayhim loolu la wax salaasatun mashhuruna dana ladhi rawahu salaasatun mashhuruna loolu la wax ci bayt yi ci kaw amma fi nga xamantene nak mom lay wax fi nak mom da fay def précision ne leg leeg nga deg mashhur li dafa siiw fekk wuñ ci istilah borom xam-xam hadith xadis rahmatullah alayhim maanaam jubluwuñ ci seen façon ni ñuy waxee ak bu ñu waxee nangam lan lañ ci jublu déedéet léeg-léeg ñu wax ko te jubluwuñ ci loolu yépp donte ko ko wax borom xam-xamu xadis la euh, ndax euh, mooy lu siiw rek d'une manière général maanaam mooy loo xamante ne ci langue luga ci làkk arab bu ñu waxee euh, mashhur maanaam mooy lu siiw wala voilà hmm, mooy allazi ishtahara comme ni nga xam ne noonu la ko allazi ishtahara fi loo xamante ne daal mooy lil ladi ñeel xadis bi nga xam ne ishtahara dafa siiw ishtahara dafa siiw fi naas ci nit ñi min xayri ci lu amul shurutin ay charte to tabar yu ñuy xalam di ko bàyyi xel kon loolu dañ koy wax maanaam mashhur tamit loolu nag la lay wax ne bul ko bàyyi xel maanaam bul jàpp ne loolu buñ ko waxee ci xadis loolu lañ ci jublu déedéet buñ ko waxee ci istilaax borom xam xadis rahmatullah alayhi liñ ci jublu moom mooy li nga xamante ne moom la définir ne walladi rawahu thalathatun mashhuruna Ah, loolu kon xadis euh, euh, euh, nag bu fekkente ne mashhur la nii rek dafa siiw nii rek te ah, jubluwuñ ci istilaax borom xam rahmatullahi mën na am càllale yu baree baree baree bëri ba nekk mutawatir mën na nekk loo xamante ne tamit mm, benn càllale rek la am mu nekk xarib mën na nekk sax aziz et cetera mën na nekk tamit xadis boo xam ne amul benn cosaan teguwul fenn te ànd ak loolu yëpp day siiw ci wax nit ñi ah, loolu kon buñ ko waxee maanaam ay càllaleeg yooyu taxul taxul leen a jóg kon euh, bu fekkente ne borom maanaam comme li al imam as-Suyuti rahimahullah indi borom xam yu bëri ko ci rahmatullah alayhim indi ko ci tadribu rawi sharh taqribu nawawi rahimahullah euh, muy joxe exemple ci xadis yoo xamante ne dañoo siiw ci làmminu nit ñi maanaam bu fekkente ne mu joxe exemple al mashhur inda ahlul xadis xaasa xadis yoo xamante ne dañoo siiwit masalan ci làmminu borom xam-xam moom mooy comme xadis bi ne anas bi xadis anas ibnu malik radiallahu taala anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qanata shahran yad'u ah, mooy xadis boobu nga xamante ne day wax na yenent bi sallallahu alayhi dafa qunut weer woo xamante ne ginnaaw ruku' day ñaan eh, waral maanaam Ra'el ak Zakwan maanaam ay ay ay ay ay tribu lañ maanaam xadis boobu boo xoolee ñaari maanaam eh, ci ñaari saxiix yi ñu ngi ci ñaari saxiix ci xadiis boo xam te ne Souleymane at-Taymi da ko jëlee ci Abu Mujlaz mu jëlee ko ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu ah, te ñeneen ñu dul Abu Mujlaz nag solo nañ ko waa ah, jëlee ko ci Abu Mujlaz maanaam jël ñeneen ñu dul. Euh, abu mujlas solo nañ ko waaye li tax xadis bi siiw ci borom xam xadis yi mooy ne mm, euh, euh, mooy dafa da maanaam borom xam xadis yi dañoo gis ni dafa tumranke ci ñoom ndax Souleymane at-Taymi souvent day jëlee ci Anas ibnu Malik radiyallahu anhu te du am benn intermédiaire le fait que nag bii pa xadis bi mu jële ko ci Anas ibnu Malik radiyallahu anhu mu am intermédiaire maanaam exception la boo xamante ne boo xam-xamu dañ koy jàpp di ko nekk loo xam ne dafa siiwee ci ñoom donte xadis bi nekkoon ñeneen ñu dul abu mijlas solo nañ ko jëlee ko ci anas ibnu malik radiyallahu anhu niki noonu ñeneen ñu dul sulayman at-taymi bi solo nañ ko jëlee ko ci abu mijlas ci boppam rahmatullah alayhima ànd ak loolu yëpp xadis bi borom xam-xam yi dañ koo bàyyi xel mu nekk loo xam ne dafa am solo ci ñoom ndax maanaam sulayman at-taymi rahimahullah dafay solo lu bari jëlee ko ci anas ibnu malik radiyallahu anhu sans intermédiaire kenn le fait que bii paa soloo ko ci intermédiaire abu mujlas bi lii moom moo indi xam xadis bi ci biir borom ko xam xadis yi ñu jox ko importance am mokkal ko di ko takk mu siiw ci seen biir dégg nga wax ni kon loolu tekkiwul ne xadis bi dafa mashhur ci istilaax borom ko xam xadis yi maanaam ci seen istilaax déedéet waaye dafa siiw ci seen biir ndax maanaam sew-sew bii nga xamante ne mooy particularité bii nga xamante ne moom moo nekk ci càllale gi euh, bu fekkente ne mu joxe exemple bi nga xamante ne moom mooy xadis boo xamante ne ñëpp maanaam mashhurun inda ahlil xadis wal ulama wal awam xadis la boo xamante ne boo demee ci xam-xam xadis yi xam nañ ko bu baax siiw na fa ñoom boo demee ci boroom xam-xam yi d'une manière générale moo xam xadis lañ jàng moo xam leneen lañu am yeneen xeetu xam-xam lañu xam siiw fa ñoom xatta awaam yi amatu naas sax siiw na si ñoom mooy xadis anas ibnu malik bi radiallahu taala anhu bi nekk ci saxexe nga xamne ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne julit moy ki nga xamante ne ñi dañu muccu ci ayu laminam ak loxom da ngay gis hadith bobu bo xole siiw na lool ci bir hatta ñi nga xamne amuñu xam-xam sax hadith bobu siiw na ci ñoom an siiw na tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xam yi siiw na tamit ci ñi nga xamne ñom ñoy boroxu xam hadith xadis yi rahmatullah ala jamia mu am ay hadith yo xamante dañu dañoo siiw ci fuqahaa yi maanaam ñi nga xam ne ñoom ñooy borom xam-xamu fiq yi rahmatullah alayhim exemple bi ci imam as-Suyuti rahimahullah joxe mooy abgadul xalaali inda allahi talaq nga xam ne al imam alxaakim rahimahullah dañ koo daf koo solo maanaam mooy xadis bi nga xamante ne na li gën a yàlla li mu yàlla sama borom subhanahu wa taala li mu gën a bañ ci yi mu dagan ci yi mu daganal mooy mooy tas maanaam mooy tas am passé passé dégg nga Euh, kon comme am passé la gën a bañ loolu moom mooy te xadis boobu imaam al-Hakim solo na ko wéral ko loolu par exemple maanaam xadis la boo xam te dafa siiw ci borom xooxum fiq yi xam ne ah li yàlla gën a bañ day mooy fase yenente bi sallallahu alayhi moo ko wax maanaam li yàlla li mu daganal yépp fase la ci gën a bañ loolu ci xam-xam borom dafa siiw euh, euh, ni noonu xadis bi nga xamante ne mooy par exemple man su ila an ilmin an an ilmihi fakatamahu mooy xadis boobu yéggale ko maanaam xadis bi boo xoolee siiw na mooy man man su ila an ilmin fa an ilmihi wala an ilmin ci beneen waaye fakatamahu uljima bi lijaamin minan naar maanaam képp koo xamante ne da nga dañ laa laaj xam-xam nga nëbb ko dinañu la euh, euh, maanaam dañ laa laaj sa xam-xam boo yore nga nëbb ko bu boobaa danañu la ŋalabee ci ay ŋalab yi sawara yàlla nañ ci yàlla musal Euh, loolu euh, xadis boobu par exemple mu ne euh, imam at-Tirmidhi rahimahullah taala moo ko solo ba pare wéral ko maanaam xasan daa jàpp ne xadis bi xasan na xadis boobu par exemple siiw na ci ñu xam ne ah waruñu ko nëbb nangam nangam yooyu noonu masalan ànd ak ne xadis bi xasan la masalan xadis boo xamante ne tamit comme bi laa laa xiibatali faasiqin maanaam jëw daal kàccoor daal jëw amul ci moom kàccoor mooy ki nga xam te day def lu bon loo xam ne dafa xaraam mu leer kon dafa xaraam mu di ko def ci mbedd mi ñëpp di ko gis loolu par exemple ñu ne kooku daal jëw ko aayul waaye xadis boobu euh, am na ñenn ñu ko euh, wéral waaye nag imam al bayhaqi rahimahullah ak ñeneen dañ ne xadis bi wérul maanaam xadis boobu mëne maanaam wérul hmm, ne voilà comme par exemple loolu xadis wax la joo xam ne xadis la boo dafa siiw ci borom xooxum fiqi par exemple rahmatullah alayhi ànd ak ne ku mel ni imam al-Bayhaqi rahmatullah alayhi ak ñeneen dañ jàpp ni xadis bi wérul pourtant ah par exemple xadis bi nga xamante ne moom xadis bu daif la ci borom xam moom dëppoo nañ ci daif ni xadis bi wérul mooy la salaata li jaaril masjidi illa fil ànd ak ne dafa siiw ci borom xam fiq yi xadis boobu wérul mooy ne ki nga xamante ne moom moo dëkk ci wetu jàkka ji moom du am julli lu dul mu jullee ci jàkka ji loolu xadis boobu wérul andak dafa siiw ci biir borom xam-xam yi fiqi rahmatullah alayhim euh euh comme par exemple hadith bo xamne mom dafa amul benn cosaan par exemple moy biñ nan hadith bi nan istaaku ardan wadahinu ghabban waqtahilu witra manam hadith bobu nan bo len de soccu na ngeen soccu ci manam euh ci largeur bi sen largeur gémmin bolen de dee ngeen ngeen ngeen di tamit parfumé wu kii bu maanaam di diw bu baax ba pare bolen de iktahlu moy tous tusngalu ngeen tusngalu loo xam te da fay impair loolu hadith bobu noonu par exemple imam ibn salah rahimahullah neena bahastu anhu falam ajid lahu aslan wala zikran fi shay'in min kutubil xadis nee na gëstu naa xadis bi waaye gisaluma ko benn cosaan ba pare gisuma fenn fu ñu ko tuddee ci téré hadith yi kon euh euh euh hadith bobu euh euh manam istako ardan parti bobu mom moy li nga xamantene surtout bobu bu ci andé manam hadith bi yëpp ni buñ ko bolé manam mom amul cosaan du tout nekkul sax ci téré hadith yi waye andak gis nga borom xom wax fiqi dafa siiw ci ñom hadith bi andak amul sax cosaan amul sax càllale faf amul sax isnad yaa ngi dégg euh, euh, euh, bu ñu xoolee comme li imam as-Saxaawi wax ci al-Maqaasidul Xasana rahimahullah mu ne ñaareelu jumla bi maanaam ñaareelu phrase bi mooy waddahinu xabba kooku maanaam cosaanu xadis bokk na ci maanaam mi ngi ci eh, musnad imam Ahmad ah, rahimahullah te imam Abu Dawud ak at-Tirmizi nañ ko ak eh, solol na solo nañ ko te. Euh, wéral na ko moom ak ibnu xibbaan rahmatullah alayhima euh, ñetteel bi mooy waqtaxilu witra moom imam abu daawuda solo na ko rahimahullah kon beneen partie bi rek maanaam moom moo amul cosaan maanaam boo ko xoolee ci xadis yi mooy istaaku ardan euh, dégg nga léegi boroom xam-xamu fikki naxu yi boroom xam-xamu naxu yi ñoom bokk na ci xam-xam par exemple yi nga xam ne siiw na ci ñoom mooy ba abdu suhayb law lam yaxafi llaaha lam yaasih maanaam euh, mooy mooy bu ñuy seet law maanaam lam lam ndax lam yi mën na répété wu ak maanaam jasmu gi law lam yaxafi llaaha lam yaasih maanaam euh, bu ñuy jasmu euh, yooyu maanaam ci fo loolu moo tax xalis bi siiw ci ñoom maanaam buñ naan maanaam est-ce que jaam bi suhayb moo baax de moom de bu ragalul woon yàlla sax du ko moy maanaam آه، الحافظ العراقي أجنين رحمة الله أجنين حديث بمم لا أصل له أمر تصار ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث كان دوكو فيك دارا تي بن تير حديث تي حديث بني عندك نس يوني تي بروكو خمو نحو يدن كي فرال دي وحنان ينتب صلى الله عليه وسلم موكو عندك نس حديث بي أمر صح تصار فف واو جيسنجا فرزام أصول يوني رحمة الله عليهم فرزام أمنا حديث بسيوش نيوم mooy xadis bi nga xamante ne moom mooy wax naan rufia an ummatil xata wa nisyaan wa mastukrihu wa mastukrihu alayhi wala boog biñ naan inna allaha wadaa an ummatil xata wa nisyaan wa mastukrihu alayhi sa mu naan maanaam sama borom buur yàlla subhaanahu wa taala dafa yëkkati wëllif sama xeet njuumte ak fàtte ak lépp loo xam ne dañ leen cee forcé maanaam yii dañoo nekk yoo xamante ne maanaam bu kaala yoo xam ne bu ci jullit bi nekkee maanaam kenn du ko teg bàkkaar kenn du ko bindal bàkkaar xadis boobu par exemple nga xamante ne eh, imam Ibn Hibban ak imam al-Hakim rahmatullahi alayhima soloo nañ ko te wéral ko dangay gis ne ay xadiis xadis bu la boo xamante ne dafa siiw lool lool lool lool lool ci biir eh, borom xam-xam usul yi rahmatullahi alayhim eh, te xadis la boo xamante nag bu wér la bokk na ci xadis yi nga xamante ne nag moom d'une manière générale rek dafa siiw ci biir nit ñi mooy xadis bi nga xamante ne par exemple moom la imam muslim rahimahullah solo maanaam moom mooy maanaam booy ci àmma yi maanaam mooy même ñi jàngul sax dañuy faral di xam xadis bi mooy man dalla ala xayrin fa lahu mislu ajri faa'ilihi képp koo xam ne da ngaa tegtal nit euh, yiw bu boobaa da am yooluk hmm, ko maanaam lu kemuk yooluk aji jëf jë euh, comme par exemple euh, xadis bi naan albarakatu ma akabirikum maanaam barke mi ngi ànd ak seen mag ñi maanaam loolu tamit xadis la boo xam ne wér na Ibn Hibbaan soloo na ko ak imaam alxaakim rahmatullah alayhi ak xadis bu mel ne par exemple euh, laysal xabaru kal muayana ah maa dégg daal ak maa gis du benn maanaam maanaam maa fekke ah, ah, maanaam dañ ma xabaare daal dañ maa dégg waaw ak maa gis du maanaam li ma fekkee daal liñ ma nettali daal nettali daal ak gis daal li ma gis daal du ñu benn loolu par exemple wax la siiw joo xamante ne ci awaam yi la la boo xamante ne imam alxaakim ak ibn Hibbaan rahmatullah alayhima solo na ko soloo nañ ko ba pare wéral nañ ko tamit hmm? par exemple am na xadis boo xamante ne tamit comme siiw na ci biir nit ñi même bu fekkente ne nit ñi jànguñu sax waaye siiw na ci ñoom al ajalatu min ash-shaytaan par exemple maanaam yàkkamti daal ci seytaane la bokk kooku ah, ah xadis boobu imam at-Tirmidhi rahmatullah solo na ko te wéral na ko Euh, comme par exemple xadis bi naan euh, euh, léegi nag am na yeneen xadis yoo xamante ne pourtant dañoo ñoom wéruñu comme xadis bu mel ni jubalatul qulub ala bi man ahsana ilayha xol yi daal dañ leen a tàggate dañ leen a bindee ci ñuy sopp lépp képp koo xam ne da ngay rafetal jëme ci ñoom ak xadis bi naan yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne umir naa an a naas ala qadri uqulihim dañ ñoo digal pour ñu wax ak nit ñi lu tolloog seenum xel ah, euh, par exemple xadis boobu ñaari xadis yi ngi mu tudd yëpp ay ni niyatul mar'i ah, ah min amalihi yéene nit daal moo gën jëfam hmm? ak man buurika lahu fi shay'in falyulzimhu képp koo xamante ne xadis bi naan yonent bi saa sax dane képp ku ñu barkeel ci mbir dara ci maanaam képp ku ñu barkeelal ci mbir daal na na saxoog moom maanaam par exemple euh, naka la ko li nga jàppoon ba mel nii bu ko ti ndax jig na la maanaam ak wax yu mel noonu nga xam te ne dañoo siiw nga xam ne yëpp pourtant ay xadis la yoo xam ne dañoo daif dañoo daif wéruñu ànd ak yooyu maanaam dañoo siiw ci nit ñi am na xadis yoo xam te ne ñoom amuñu cosaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxu ko maanaam euh, borom xam-xamu xadis yi yu demee nekke maanaam yëpp lool la ñuy wax nag ci mustalaxu borom xam maanaam borom xam-xamu xadis yi rahmatullah alayhim en tout i ni ñu tëralee mbir yi maanaam ak base yi ñu teg noonu ñoom xadis yooyu wéruñu fa ñoom maanaam yi may tudd nag amuñu cosaan comme imam as-Suyuti rahimahullah joxe ci exemple comme ki naan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ku xam ku xam boppam ah ak kuntu kanzan maxfiyan laa orafa xadis boobu noonu nekkoon na ab trésor boo xamante ne kenn xamuma woon dégg nga nee na moom ma daal di sopp daal di bind ma ab leer ma tudde ko ma ne ko nekkal Muhammad par exemple xadis boobu par exemple du xadis boo xamante ne am na cosaan ci biir xam-xamu xadis borom xam-xamu xadis yi yépp dañoo neen amuñu benn cosaan hmm? et cetera manam yëpp ay hadith la yoo xamante par exemple yoy yu ci bare bëri maanaam nekkuñu ay hadith yo xam dañu wér hadith la nak mën na yo mën nañoo siwu ci laminu nit ñi wala yu mel noonu fekk wéruñu comme utlubul ilma wala bisin lool bok na ci exemple yi ñu mën joxe tamit sàkku ji leen xam-xam doonte da ngeen dem ba hadith bu manam daifun jiddan wala mawdu comme niko ko borom xam-xam yi saxale rahmatullahi ala al jami' ah cheikh ahmad shakir rahimahullahu taala depuis bi bunt bi tàmbali ba léegi am na maanaam benn wax ju mu ci wax manam fi ni mooy annotation yi nga xamantene mom la def ci alfiya bi rahmahu allah rahmatan wasi'a al hadith al mufrad al mutlaq wa huwa alladhi taqaddam fi al afrad annahu ma rawahu wahid faqat yusamma aydan al gharib fa ida infarada bilxadisi raawiyaani summiya azizan fa idha rawahu akthar min ithnayni summiya mashhuran maanaam xadis bi nga xam ne moom lañu al mufradul xam ne moom mooy bi weesu woon ci afraad yi ci al afraad bunt bi nga xam ne moom mooy bunt bi weesu suñu bunt bi mooy ne lépp loo xamante ne kenn moo ko soloo kenn kese loolu dañ maanaam mooy lu ñu sol loo xamante ne kenn rek ko solo loolu moom mooy al fardul al fardul mutlaq al fardul mutlaq mais dañ koy tuddee ba tey itam lan al gharib su fekkente ne euh, maanaam dafa wéetoo ci xadis bi nag ñaar ñoo wéetoo ci solo xadis bi boobaa dañuy tuddee aziz dañ koy tuddee aziz su fekkente ne lu ëpp maanaam lu ëpp ñaar la bu boobaa dañ koy tuddee mashhur maanaam kon ñett jëm kaw ah, mu ne hada huwa alladi rajaxahu ibnu xajar wa xayruhu min al mutaaxirin lii mooy li alxaafis ibnu xajar rahimahullah nootal moom ak ñeneen ñu moom ci ñu mujj ñi mu ne wa dahaba ibnu salah ila an ila man farada bihi isnaani aw salaasa maanaam imam ابن الصلاح رحمه الله def ni لو xamante حديث بو boo xamante ñaar wala ñet ñoko solo lol mom moy aziz manam mom moy aziz ñaar wala ñet moy comme li imam albayquni wax rahmahu allah aziz marwus nayni aw thalatha والمستفيض يطلق أيضا على المشهور ولكن المؤلف ذهب إلى أن المشهور ما رواه ثلاثة والمستفيد ما رواه أكثر من ثلاثة من المستفيد نك المستفيد ما نم دنكو جيال تي مشهور مو مشهور بان من واي نك بوروم خم خم ما نم واي كيغا خن موي كي تالف تيري بي موم امام السيوطي رحمه الله موم دا فا ديم دافا دافا واخني مشهور موي لو خمني نيت سولو نكو مستفيد نك موي لو خمتي لو اوب نيت نيوم نيوكو سولو من هو الظاهر من عبارات المتقدمين انهما واحد wa anna al mutawaatira qismun min al mashhur wa sayati al kalaamu alayhi maanaam euh, waaye li feeñ ci waxu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu njëkk ña maanaam mooy ne mustafid ak mashhur lool yëpp benn lañ te mutawaatir xaaj la ci mashhur maanaam benn partie la ci mashhur mooy loo xamante ne ñett jëm kaw soloo nañ ko dégg nga wax ji euh, kon mu ne loolu dinañ ci ñëw ci kàddu incha allah mais gis nga ni am na différence comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe noonu lañ ko giseen walillahi alhamdu wal minna mu ne summa inna algaaliba ala alxadis algarib an yakuna daifan wa minhu saxix walxasan kama mada mu ne topp nag mu ne li noot ci li nga xamante ne moom mooy xadis boo xam ne garib la algarib mooy ne day nekk loo xam ne dafa daif xadis boobu te mais nag am na ci xadis yu saxix aw yu xasan comme ni nga xam ne noonu la weesoo mu ne wal garabatu takunu fil matni wa sanadi maan maanaam tumuranke gi nga xam ne moom mooy am nag ba tax ñu naan hadith bi gharib la maanaam tumuranke gogu mën na nek ci yahu hadith bi mën na nek ci càllalay hadith bi ñom ñaan ñep ñu àndandoo wa takunu fi sanadi wahdahu leg leg mu nek ci càllale gi kesse mu ne wa qad takunu bi asl hadith leg leg ci ciosanu hadith bi sax lay nek manam kon euh hadith bi mat manam gharaba gi manam naan gharib mën na nek ci matnu gi sanad bi mën na nek ci sanad bi kesse leg leg nak mu nek ci ciosan al hadith bi manam ne hadith bi duñ manam ci ciosan moy manam mom mo gharib wa qad takunu bi ziyadatin fil matn leg leg mën na nek ne hadith bi du mom rek du mom lépp gharib waye dafa am ak ndolent gu nek ci hadith gi bo xamantene ci ben càllale kesse la ñëw mo lol bu wawa dañ nan ndolent gi mom moy li gharib de nga wax ni lolu day am tamit wa qad takunu bi ziyadatin fi sanad leg leg tamit ak ndolant ci càllale gi ci bopam moy nek lo xamantene mom moy li gharib mom moy ak ndolant mom moy tax hadith bi gharib wala takunul gharabat fil matni kullihi wahdahu duna sanad waye nak ak tumranke du ñëw ci càllale gi lépp manam ci matnu bi lépp lépp lépp matnu hadith bi lépp gharib après sanad bi mom gharib lool man tane lool du ne mu li li al matna idha kana ghariban bi isnad muayyan kana al isnad ila hadha al matn isnadan ghariban fa yakunu garibal matni wal isnaadu maan loolu nag li ko indi mooy ne ca mooy ne yaxu xadis bi matnu bi su fekkente ne dafa tumranke ci benn ñëwee rek ci benn càllale kese kese kese kon bu boobaa càllale googu tamit day daal di bi jëmee ci boobu yaxu xadis tamit day daal di nekk benn càllale moom kese moom tamit nekk lu tumranke nekk garib maanaam nekk lu càppaaculi bu boba nak motax ñu wax ne bu wa day da nek gharibul matn wal isnad manam gharibul matn wal isnad ma an day nek gharib ci tialale manam ak yah bi en même temps mu ne wa amma xarabatul isnaadi وحده فتكون في حديث معروف بأسانيد أخرى ويأتي بإسناد انفرد به راو واحد فيكون hadha al isnad ghariban manam amma garib gharib bo xamantene ci tialale rek lay nek mom kesse kesse kesse loolu ni mi nekke mooy day nekk xadis boo xam te ne dañ koy xamee ci ay yeneeni càllale waaye mu am euh, mu ñëwee nag ci càllale goo xam ne kenn rek mooy wéete ci càllale googu noonu lay nekkee bu boobaa day daal di nekk xadis boo xam ne day tumuranke maanaam xadis boo xam ne càllale yu bari la am mais mu am càllale goo xamante ne comme niñ ko gisee voilà comme mooy parce que moo tax alxaafis ibn Hajar rahimahullah comme niñ la ko waxee woon différence bi ànd nekk ci entre fard ak xarib mooy ne xarib souvent ci nis bii lañ koy askanale dégg nga wax ji manam kon fardu nis bi moom la faral di diko askanale souvent yaa ngi dégg maanaam moo bu ñuy wax xaribun manam ci sanat kesse mo loolu moom noonu lay amé manam gharibun ci sanat non lay amé mu ne wa amsilatu hadihi al anwaa kasiratun ma'rufa fi kutub kutubi sunnah wa kutub al mustalah wa innama nuridu an nunabbiha huna ala misalin waxidin yuxti fihi fihi nas wa huwa xadisu innama al amalu binniyat فقد زعم بعضهم أنه مشهور بل غا بل غالا غيره فادعى أنه متواتر والحق أنه حديث غريب أي فرد مطلق مانام اكزامبل ييغا خامتاني نك نيوم نيو ام تي حديث ييغا خامتاني غريب لا بارينن تي تيري حديثي بارينن تي niki noonu ci téere yi mustalax xadis yi tamit bari na ci waaye mu ne dañoo namm rek ngir ñu leeral benn mbir maanaam fii benn misaal ci benn exemple boo xamante ne ñu bari ci nit ñi dañ ciy juum ah, te moom mooy xadisu innamal amalu binniyat ndax am na ñoo xamante ne njort nañ ne xadis bi dafa siiw ñu koy wax ñuy ñuy wax ne xadis bi day xadis bu siiw la maanaam xadis bi mashhur la maanaam yegg na ci maanaam daraje mashhur am maanaam da mashhur dans le sens bi comme boroxom xadis di waxee maanaam ci bi ah am ñoo xamante ne ëppal nañ ba dem ba ni sax mutawaatir la xadis bi mutawaatir la waaye hmm, dégg naa ab wahabit bu ko mës mu ne xadis bi ibnu taymiya nee na ah, xadis bi mutawaatir la xaw ma nag ba xam toxal googu ci ibnu taymiya dëgg la dëgg mais daal nee na moom ibnu taymiya nee na xadis bi yaa ngi dégg mutawaatir la parce que ah, ba mu jógee ci sufyan si ci yaxya ibn sa'id al ansar dafa mujj siiw rahmatullahi alayhi ala kulli xaal ah, bi mom fard la gharib la comme ni nga xamantene non lañ ko waxe maanaam noonu la ko tamit Cheikh Ahmad Shakir rahimahullah di waxe ni hadith bi gharib la manam fardul mutlaq la lol lay tek fa innahu tafarrada bihi Umar an nabi sallallahu alayhi wasallam wa tafarrada bihi Alqama an Umar wa tafarrada bihi Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi an Alqama wa tafarrada bihi Yahya ibn Sa'id an at-Taymi ثم اشتهر بعد ذلك بل تواتر عن يحيى بن سعيد وقد ورد بأسانيد اخرى من غير حديث عمر ولكنها كلها أسانيد ضعاف حديث بي Ah, dëgg gi mooy ne dafa xadis la xarib la fard mutlaq la maanaam ndax lan ndax sayyidna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rek moo ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn moo solo ko solo maanaam kenn moo solo xadis bi ci Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu muy Alqamata ibn ibn Waqas al-Laysi rahm al-Laysi rahimahullah moom rek moom solo ci Umar radiyallahu anhu niki noonu Muhammad ibn Ibrahim at-Taymi rahimahullah moom rek solo ci Alqamata ibn Abi niki noonu Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah moom rek solo ci at-Taymi rahimahullah maanaam ci la siiwee mu ci la sax nekkee loo xam ne dafa am tawaatur ci Yahya ibn Sa'id ci dafa dafa ci la tasaaroowee ca moom d'ailleurs mu ne mais mais xadis bi dëgg-dëgg ñëw na ci yeneen i càllale yu jaarewul ci Seydina Omar radiyallahu anhu waaye ñoom ñëpp dañoo ay càllale yu daxif lañ baax na voilà mu ne waqad yatluqu ba'd ba'd al-ulama ism al-mashhur ala al-ahadith allati ishtaharat ala alsunati an-nas sawa'an kanat sahihatan am da'ifatan aw am makzubatan wala yuriduna biha al mashhur fi istilah fi istilah al muhaddisina euh, mu ne waaye léeg-léeg mu ne mu ne waaye nag borom xam-xam yenn borom xam rahmatullah dañuy joyal baatu mashhur ci ay xadis yoo xam te dafa siiw ci làmminu nit ñi moo xam xadis yooyu wér nañ wala dañoo da daif wala dañ koo sos hmm, mu leen dañ koo sosal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waaye loolu nammuñu ci siiwaay bi nga xamante ne maanaam mashhur baatu mashhur ci istilaahu borom xam-xam xadis rahmatullahi alayhim mu ne wa fi hada kutubun jamma mufida tabayyana saxeex minha min gayrihi maanaam am na ci ay ci ci ci ci ci ci mashhur nag ay xadis yoo xam maanaam ci buntu bi maanaam ay xadis yoo maanaam yoo xamante ne yu am solo la yu mën a yoo xamante ne um, Euh, yoo xamante ne euh, euh, dañuy leeral li nga xamante ne mooy li wér ak li wérul mu ne min an fayaha bokk na yi ci gën a mooy kitaabu tamyiz tayyib bi al xabis comme bi mooy tuddoon nañ ko ci jotaay bi weesu bu ibnul baddi ibnu dab ibnu dabia ash-shaybaani hmm, moom mooy mu allifu mooy ki bind tamit en même temps taysirul wusul maanaam niki noonu ñaareel ba mooy wa kitaabu kashful xafaay wa muzil albas amma ishtaharat min al ahadith ala alsinati nas comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee bu al ismail eh, ismail muhammad al ajluni rahimahullah maanaam bi nga xam ne moom moo génn àdduna al mutawaffi sana moo génn àdduna atum 1162 a mu ne waxoo fi mu mujalladay nii maanaam ci ñaari tom la Euh, nekk maanaam ci ñaari tom la ne bon waxoon nañ tamit al maqasidul xasana bi nga xamante ne moom la al imam saxaawi rahimahullah bind et cetera walilahi alhamdu minna euh, léegi imam as-suyuti rahimahullah muy yeggale ci li nga xamante ne maanaam moom mooy euh, li aju ci ci Euh, mutawatir léegi nag jóge nañ kon ci mashhur yaa ngi dégg léegi ñu war a dugg ci lan ci mutawatir mu ne wa ma rawahu adadun jammun yajib ixaalatu jitimaaihim ala alkadib falmutawatiru wa qawmun haddadu bi ashratin wa huwa ladaya ajwadu wama bépp xadis boo xam ne rawaahu solo na ko adadun mbooloo jàmm bu bari jàmm dañuy wax jàmm maanaam lu bare bari maanaam wama rawaahu kon bépp xadis boo xam ne solo na ko adadun mbooloo jàmm bu bari boo xam ne yajib dafa war dana war ixaalatu ak jombuk ijtimaa'im seenuk dajale alal kadib ci kàcc ci wax lu du dëgg fal mutawaatir loolu la ñuy wax mutawaatir mutawaatir mooy loo xam ne nit ñi maanaam mënuñoo daje ci di kàcc noonu rek ci di expliquer loolu mënta ne yaa ngi dégg il faut mu nekk loo xamante ne euh, euh, maanaam niñ koy solowee day nekk loo xamante ne ñoom ñëpp mënuñoo daje ci di wax lu dul dëgg mu ne euh, kon xadis mutawaatir dafa am ay kon ay condition il faut mu nekk loo xamante ne nit ñi mënuñoo daje rek ci di ko expliquer noonu première condition bi kon ci xadis mutawaatir mooy Euh, dafa war a nekk maanaam ñeenti condition la en même en fait duñ duñ buñ ko xoolee dëgg-dëgg condition bu njëkk bi mooy ne génération bu nekk maanaam ci génération bu nekk mbooloo mu bare bare bare bari soloo ko léegi nag mbooloo moomu nan lay toll loolu moom dinañ ci ñëw incha allah kon loolu mooy ci première condition bi parce que euh, voilà am nañu wax euh, euh, comme ni mu ko waxee wa qawmun haddadoo bi ashratin am nañu wax fukk am nañu wax fukk ak ñaar am nañu wax ñaar fukk am nañu wax quarante am nañu wax soixante dix am nañu wax sax trois cent comme ni nga xam ne noonu nañ ci ñëw allah léegi ñaareelu condition bi mooy kon mbooloo il faut ñu nekk mbooloo mu bari de génération en génération mbooloo mu baree baree baree baree bari ci étape bu nekk mbolo mu bari solo ko ba pare ñu mëna xam ñi ñan la tak leen indi leen euh, benen bi moy impossibilité wu le fait que ñom manam moy mooy istixaala moo tax la wax manam jam xam nga wax na mbolo jamun qawmun euh, euh, wa ma rawahu adadun jamun donc war nek ñu bolo ñaareelu condition mooy yajib dafa war a war dafa nekk loo xam ne daa war ixaalatun maanaam ak jombuk ijtimaa'im seen dajale daje alal bi ci kàcc maanaam dafa nekk tamit ñaareel mooy ñoom ñaar ñoom ñi dafa war a nekk loo xamante ne nit ñoo mënuñoo dëppoo ci wax lu dul dëgg déggoo ba wax lu dul dëgg ci loolu ñoom dadul mën a ne mbooloo ma bari ba mu bari moo waral loolu niki noonu tamit mënuñoo bokk ñoom ñëpp juumandoo ci ni ñu nettalee mbir mi ci ni ñu toxalee mbir mi loolu mooy ñaareel bi kon ñetteel condition bi mooy il faut mu nekk loo xamante ne pour mu ñu war na wax mutawaatir la il faut mu nekk ci génération bu nekk maanaam génération boobu il faut mu nekk mu dale ko ci départ fi càllale gi fi information bi jóge mu nekk foofu d'abord di jóg di yéeg di yéeg di yéeg ba ci kaw yaa ngi dégg ba ci fi càllale gi yem euh, ñeenteel bi mooy mu nekk loo xamante ne fi ñuy sukkandikoo pour tëral information boobu mu nekk loo xamante ne lu ñu mën a laal la lu ñu mën a laal mën koo seede mën koo dégg soit day nekk loo xam ne dañuy mën a jàkkaarloo moom gis ko wala ñu mën koo seede comme tey bu fekkente ne damaa seetaan benn information ñu indil ma euh, euh, euh, télé yi ma seetaan RTS seetaan France 2 seetaan 2STV seetaan Al Jazeera euh, télé yu bari ñu toxalal ma même image bi ñu bari moom de telle sorte que mu xamna naa ni ñoom ñëpp mënuñoo euh, depo ci trafiquer image bi ni xeyna nak nag information bi ci manam li nga xam te ne mo ci sukkandiko mais il faut ma xam source bi manam ñom ñëpp ñu fekkee woon ko par exemple tey euh, euh, bu ñu il faut mu nek luñu mëna laal tay par exemple aw dekk ñom ñëpp tay buñu depo wé ci joxe ab information bo xamante ne mi ngi dogay a ci ñun ñu ne ñu depuis barki demb amna dëkk sangam xew-xew sangam amna fa nga gis wa dëkk bi yëpp dëppoo par exemple ne seen bour mo gën aduna seen bour ba han ah, wala wala wala wala dañoo changer président ñu ñëpp ñu dëppoo ci wax ko dañuy daal xamné information boobu dëgg parce que ñoom ñëpp c'est impossible ñu ñu toxalandoo do lu dëgg nonu wala ñu baree baree bari ci ñoom jóge fa informer ñu ci benn xew-xew bu fa am yooyu tamit day tax manam il faut que ñu nekk ñoo xamante mënu mënuñoo dëppoo parce que buñu xamanté xamante par exemple day fekk ni mën nañoo dëppoo ci wax lu dul deug buñu xamanté mais bu fekkee ne ay nit la ño xamné en général du faral di wax lu dul deug lu ñu wax rek deug la souvent ñoñu tamit bu boba buñu nekké mbolo mu bari day daal di mëna nek lo xamné xam ne lañ nettal loolu day daal di mën a nekk dëgg euh, comme tey par exemple euh tuur yi tuur wóor tuur yi daaneeloon nañ ko. 2001 11 septembre loolu par exemple xam nañ ñu dëgg la parce que non seulement image yi nañ ñu ko waaye ñu baree bare dañoo maanaam de telle sorte information bi daal dañ ko mën a laal parce que ñu baree bare dañuy ñëw ne effectivement tuur yi daaneel nañ ko nangam nangam comme par exemple euh, euh, ndax Inde existe na léegi nag par exemple ci exemple tuur yi ñun loolu lañ mën a assurer loolu mooy mutawaatir mais am maa kan moo ko daaneel loolu moom amuñu ci information bu ñu mën a sukkandikoo. kan moo ko dóor mu daanu ñun daal li ñu xam daal mooy avion dóor na ko mu daanu avion boobu kan moo ko commandé ku ko yónni nu mu def ba yegg si loolu ñun amuñ ci benn information bu dëgër boo xamante ne mën nañ cee dóor suñu loxo dugal ko ci taal bi waat ne lii mooy li xew mais liñ mën a dóor dugal suñu loxo ci taal bi waat ne looloo li xew mooy ne yi moom daanu nañ yaa ngi dégg avion dóor na ko après mu daal di daanu ndax dañoo tegoon dañ cee defoon ay ay ay nu mu tuddati mm, euh, kii bi. nu mu tudd euh, euh, euh, yooyu nga xam ne dañ koy def rek ci ci ci fàtte naa nu mu tudd ay ay dynamo yoo xam te ne day day day exploser après ñu def ko ci étage yu bare bari ci tour yeeg yooyu comme ni ko ñenn ñi waxee yooyu wala loolu wala bokk avion bi rek a daaneel lépp wala wala lu xew loolu moom mooy li nga xam ne maanaam amuñu ci information yoo xamante ne mën nañoo sukkandiku pour wax ne lii moo xew dëgg-dëgg mais daal liñ mën a wax xoolal tey par exemple nit ñi dem nañ ci weer wi information bi gars yi dem nañ ci weer wi loolu par exemple c'est pas impossible que ñu daje ci fenn ci wax loolu ànd ak ne effectivement dañ koo toxal mais daje ne ne ne effectivement Armstrong demoon na ca weer wa yaa ngi dégg loolu xam nga information la buñ toxal ñu baree bari gëm ko ñu koy toxal d'ailleurs sax nee nañ wane nañ télévision bi wax wax ko mais loolu doyul parce que li tax doyul mooy Euh, infor mooy mooy ne Occident rek ñoo ko wane woon waa Occident te jamono jooju ñoom dañ doon xeex ak Union soviétique mu nekkoon guerre froide yaa ngi dégg mu nekk loo xamante ne kon psychologiquement ak ci bataille psychologique ak bataille bi ci biir guerre froide bi moment boobu loolu ne dem nañ fa ba samp fab drapeau américain ci kaw weer wax waajo wa yooyu maanaam dafa nekk loo xamante ne ñun suñu information mënul dëgër ci loolu au moment où eh, occidentaux yi rek ñoo daje ci ci wax ci wane ko ba paré jam dafa invraisemblable manam jamono jojo parce que ah ah ah moyen de kii technologie avancé wul won et cetera yaa ngi dégg euh, ak yeneen mbir yi nga xam ne daal wane na ni vraiment gars yi moom seenu dem googu ñuy wax ca weer rawatina waajo ba mu ñëwee daa daa daa commencé <laughs> nëbbatu mel ni ku ku dof ndax lan ndax maanaam dañ ko dugal ci kàcc te tubaab yi en général ñoom xamuñu loolu ñoom doo leen wax loo do mensonge du siècle boo leen ko def loo wee dañuy dof waaw ah oui nit ñi ñëw naan xam nga koo xamante ne dañ ne ko dangaa dem ci weeru yow yaay euro Amérique nangam àdduna bi yow yaa njëkk teg sa tànk ci kii bi loolu yow mbir moomu si waay boobu tax mënatoo nekk nit ñi nga démissionné si liggéey dem tëju ji mel ni dof loolu dañuy xam ne sawaay am na lu ci xew parce que tubaab yi xamuñu ñoom nga di leen kàcculoo ko ñoom non léegi euh, su fekkente ne euh, euh, da nga cee boole nag le fait ngeen mbir wane ni lii boo muy tudd dëgg yu bare bari wane ko ndax bu fekkente ne par exemple ba bu yàggul boo yéegee ci avion yor téléphone portable dañ naan la saa waay fay ko parce que dañu bañ interférence yi am avion bi daanu et cetera loolu léegi lañ ko commencé permettre bu fekkente ne loolu am na et xam nga kooku mooy loolu ak yeneen ak yeneen. yo xamantene mom moom bon yu bari dal yo xamantene dañ koy dañ koy wane manam ne kon depp wuñ ci fen loolu mënuñu ko xam loolu mënuñu ko xam au moment où ñom rek ñoko toxalé non comme liñ wax par exemple euh, wane ay image euh, ki télévision yépp wane ko ñu né iraga file ngi ni fi la fi la fi la bombe yi nekk ndekete du dëgg ah eh, nan la tuddu arme nucléaire fi la né ñu ñu wone ko ci télé bi ñepp diko gis ndekete du woon dëgg loolu moo tax le fait que ñëpp di ko wane ak gis naa ko ci internet siiw na loolu du tax mu nekk dëgg il faut mu nekk lu ñu mën a laal nga xamante ni information bi ci koy indi dafay wax ne man maa ko gis maa ko fekke du nekk ne dama ko seetaan ci télé bi ko dégg déedéet ko fekke maa ko gis information télé bi moom ak kii rek ñoo yem maanaam il faut mu nekk maanaam selon d'ailleurs sax mbir mi ci lan la aju mu tawaatir xaddu tawaatir day daal di wuute tey bu ñu gisee exemple yi ñu joxe dañuy xam ne selon mbir mi li mu li mu ci li mu aju rek xaddu tawaatur day wuute kañ la ñu mën a wax ne mu tawaatir la mbir mi day daal di mën a wuute comme tey par exemple gars yi dem nañ ci weer wi loolu mun tawaatur amu ci parce que ñenn rek ñoom ñoo jël seen image wane ko image boobu xamuñu fu mu jóge télévision occidentaux yi rek ñoo ko wane au moment am nañ ay information yu wane ne gars yi mënuñ déjà ñoom mënuñoo dem sax ci weer nee na mars benn et o oh, gis nga eh, maanaam ñoom ña ngay jéem a yónni ay robot mars te mënuñoo dem ca weer wa nee nañ weer wa buñ fay jéem a ña ngi koy àpp ci deux mille vingt cinq léegi mujj gi nee nañ non léegi sax bàyyi nañ ko te mille neuf cent soixante neuf ñu mënoon a dem ca weer wax loolu yan na maanaam ah, léegi eh, eh, kon boo xoolee loolu yëpp da ngay gis ne kon loolu tawaatur mu mutawaatir amu ci loolu xaddu tawaatur munu cee am alors que tawaatur am na par exemple mën na am par exemple ci tuur yi daanu na tuur yi moom daanu na mën nañ koo xam parce que c'est impossible média yëpp di waneendoo tuur bi muy daanu parce que tuur bi fii la ne ñu mën koo gis nit ñi ñu wane nit ñi taxaw di seetaan ñi dem Amérique bu ñu dellu see mën koo nettali kenn taxawul weddi loolu dañuy daal di xam ne kon ne tuur yi daanu na kon boobaa dañuy xam ne mu tawaatir la Saddam Hussein deena par exemple ray nañ ko loolu tamit mutawatir la parce que dafa impossible ñepp dajalo diko wax fekk Saddam Hussein nga ko ne dund Iraq nga ne di tak nit ñe ngay xex ak ah, di di di def ay ay attentat suba ngon ndax ah, dañu bëgg manam ndax dañ leena imposer luñu ñu ku ñu bëggul mu jité leen et cetera kon ci lañu xamé xamee ne ah d'accord kon Saddam Hussein mom deena na ak yeneen ak yeneen yo xamantene ay mbir la yooyu kon ça dépend ci mbir mi information bi limu aju. tey par exemple benn waay su ñëwee fii ñëw ne ma euh, ci bopp koñ bi dafa am oto bu fa accidenté ma ne ah bon nga ne ma waaw euh, beneen waay ñëw nettaliwaat ma ko beneen waay ñëw nettaliwaat ma ko ñu bari ñëw nettal ma ko ba ñu mat par exemple euh, ba ñu mat te ñoom bokkuñu fi ñu jóge kenn ki par exemple tubaab la boo xam ne da doon doxe ji ay soxlam kenn ki wolof la bu doon ñëw fii ci kër gi ki ci des nekk euh, ab naar bu ma romboon fii moom ci moom euh, masalan ca jàkka jëla jógee ki ci des et cetera ñoom ñëpp xamante wuñu ñu ñëw di ma informer ñu buñ ma informer par exemple suñ ma tey juróom juróom benn et cetera rek damay daal di commencer xam ne ah kon ñu mu mutawaatir am na damay daal di xam ne ñii ñëpp mënuñoo dëppoo ci juumandoo ci wax ne accident am na te du dëgg mënuñoo tamit dëppoo ci ci ci ci ne nañ dem romb ji waajee bu ko defee eh, fekk ko foofu daan ni ko mm-hmm. accident am na ci bopp koñ bi maanaam kon mbir mi sax dépend ci li mu aju mu tawaatiir kon ci mbir moom loolu la looloo tax condition il faut mu nekk loo xam ne luñ mën a laal la luñ mën a fekkee la nit ki naan maa ko fekkee maa ko ci kaw loolu ci la alquran nekkee loo xam ne mu tawaatir la ci la ci kaw loolu d'ailleurs ci la comme téere yi nga xam ne ñoom ñooy saxeexul Buxaari yi saxeex Muslim yenn téere yi ci la siiwee nekk loo xam ne mu tawaatir la léegi nañ xool tey par exemple benn waay non subhaana rabbi euh, nañ jël exemple rek ñu ne euh, par exemple Cheikh Alhaaji Malik radiyallahu anhu moo bind Taysiir loolu ban ban ban ban la wala du mutawaatir wallahu alam mais loolu mënee fu ko wax ne mutawaatir la mën nañu siiw na te njort moo noot ci ne moo bind Taysiir loolu rek lañ mën a wax parce que tey siir bi ñu koy génne c'était maanaam mooy bi sëñ Babacar radiyallahu anhu génne àdduna ci la ko bay mbay njëkk mbay doon de njëkk génne wooy ko à moins que le fait que mu nekk ci diiwaan bi te diiwaan bi di toxu waaw loolu pat peut maanaam loolu dañ naan waaw loolu mën nañ ci dogu naam waaw waaw maanaam ah, si si mën nañ ci dogu ndax le fait mu nekkoon ci mu nekk ci diwaan bi mais su dul lu mu nekk ci diwaan bi mënuñu cee dogu parce que Euh, euh, euh, il faut pour ñu dogu ci il faut mu nekk loo xamante ne ki ko mu maanaam mu nekk lu jokkaloo ci génération yëpp ci parti yëpp ci génération yi looloo tax par exemple xadis innamal a'malu binniyat du mutawatir ndax lan ndax génération yu njëkk yi nekkul woon lu ci ah nekkul woon lu lu lu nekkul woon lu Euh, lu tasaaroo woon maanaam ci riwaaya ci solo alors que boo xoolee xadis yi nga xamante ne ñoom ñooy mutawaatir yi dafa fekk ni ci génération yi dès les dafa nekk lu tasaaroo léegi nañ xool bible bi bible bii ñu yor bi nekk fii est-ce que mutawaatir la wala déet dañ naan la déedéet parce que lu tax parce que amuñu càllale goo xamante ne li ko dalee ci jamono ñi ko bind moo yegg si ci ñun ba léegi amul càllale ci kaw loolu amul woon comme amuñu woon ay càllale ba ba mën a xool ni ah diw jëlee na ko ci diw kooku jëlee ko ci diw diw jëlee ko ci diw kooku jëlee ko ci diw ñu wuute ci génération bu nekk étape bu ne ay mbooloo ñu bari am ko loolu moom moo tax ci kaw loolu ci la ñuy doog a mën a wax wan mutawaatir la wala déet comme tey par exemple yent yàlla Isa alayhi salaatu salaam nee na dañ ko chrétiens yi dañuy wax ne dañ ko pendre lu dëgg loolu lan la loolu kenn mënu ko tudde mutawaatir parce que lu tax parce que fekkee il faut que nga fekkee maanaam il faut mu nekk lu ñuy laal information bi il faut mu nekk lu wóor lu ñu mën a laal boo gisee nag ñu guddal ci bii masala dafa fekk ne mu mutawaatir dafa nekk loo xam ne dañ ko war a maanaam dafa condition bii dafa nekk condition boo xamante ne sine qua non primordial boole ci ci kaw loolu kon mboolem information yi ñuy nettali naan sëriñ diw def na nangam sëriñ diw mas na loolu dara nekku ci mutawaatir amul dara dara lu ci nekk mutawaatir amul masalan nag léegi tey par exemple ndax Serigne Babacar si radiyallahu anhu nekkoon na xalifa dañ naan la waaw loolu mutawaatir la nu noo xamee ni mutawaatir la parce que mbooloo mu bare bare bare ñu ko fekke jamono bi mu nekk xalifa ñoo ko toxal jële ko ci mbooloo mu maanaam toxal ko ñeneeni mbooloo ñu bare bare ci génération bi ci tegu ba ci suñ génération ci kaw loolu dañu xam ne kon nekkoon na xalifa ñoo xam ne ñoom ñëpp c'est impossible ñu dëppoo ci ne sëñ Babacar nekkoon na xalifa radiyallahu anhu fekk du woon xalifa c'est impossible ñooñu tamit ci beneen génération bi noonu sa tera ba mu yegsi ci ñun par exemple Louis XIV nekkoon na roi de France waaw nan lañ ko xamee mutawaatir la nan la nekk mutawaatir parce que génération bu ñoom ñëpp depuis génération en génération dañ doon toxal wax jooju ci ñoo xam ne ñoo ko fekkee ñooñu jëlee ko ci ñu ko fekkee et cetera ñoom ñëpp ñuy dëppoo ci information boobu ba léegi yaa ngi dégg. kon il faut que mu nekk ca le départ ba ba mu yegg si loolu la ñuy wax mutawaatir mais rek ñëw rek wax ji siiw na rek euh, par exemple euh, sëñ Tuuba radiyallahu anhu ndax julli na ci géej gi loolu du mu mutawaatir mën nañ ko gëm d'accord ko mais du mu mu mutawaatir pour mu nekk mu mutawaatir il faut que mu nekk ñoo xam ne dañ koo fekkee ñoom ñu bari mbooloo ma bari lool fekkee ko nga xam ñoom ñoom ñëpp mënu mënuñoo dëppoo ci wax lu dul dëgg ñoom ñëpp ñu dajalo mbolo mu bari toxal ko ci mbolo mu bari toxal ko ci mbolo mu bari ba mu yegg ci ñun mais loolu mo amul ci kaw loolu ci la masala yu bare bare bari yu ñuy askanale serigne ci ci kaw loolu rek la tegu nit ñi nak fook ne mu taw atir la fekk du mu taw atir ndax Senghor nekkoon na président de la république waaw nuñ ko xamee mu taw atir la <laughs> yaangi deg loolu il faut que mu leer ñu xàmmee ko maanaam ndax dañ koo fekkee waa ji gars yi ñoo ko fekkee mu nekkoon président ñu koy woowee monsieur le président ñu bind ko ci ci ci ci ci kayit yi jamono jooja d'abord ba léegi muy yegsi noonu tamit la mbir mi demee kon loolu il faut que mu nekk lu leer ndax alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu moo samp Serigne Mansour xalifa waaw ndax loolu mutawaatir la déedéet Serigne Mansour xalifa la waaw ndax nek na khalifa ni ni ni waw mutawatir la parce que ñepp xam nañ ni mooy xalifa bi ñu bare bare ndax alaaji abdu moo ko samp waw ndax dañ ko gëm ci information ñi ñu ko wax ñi fekke won mbir mi ak kiñ ko doon bindulo ak yoy ndax mutawatir la dedet du mutawatir ne alaaji ab dedet parce que ñi fekke lolu bari wuñ yaangi deg mbir mi lii mooy mu diggante mutawaatir ak lu mutawaatir ndax ñoo parce que xel yanu na ne ñoom dañoo complot loolu xel yanu na ko mais sauf que seenu xam gi ñu xam ne ñoom ñooy ñan moo tax ñu ñu gëm ko ngir dëggal leen ñoom du dëgg mais fi mu toll amul rien dara lu ñuy wan ne alaaji abdu moo bind xasida boobu radiyallahu anhu amul dara lu ñu ko wan lu dul nettali gi ñu nettali ne moo ko bind ki ko bind ne ñu alaaji abdoo ko bind kini ne fekke na ko bi ko alaaji abdu di wax nañ ko lire ñu nekk nangami nit mu jeex loolu moom lañ mën sukk ndax ñoom dañoo dëppoo ci wax complot loolu man naa ne xel dàq ko li nga xamante ne nag moom bu fekkonte ne da koo wax par exemple ci télé bi ñëw ci kanamu télé bi wax ko ñëpp déggandoo ko ñu bari toxalandoo ko boobaa dañ naan mutawatir la xàmmee nga léegi mutawatir ak lu dul fokk mu leer pour ñu xam buñ la netalé dara nga mëna xam fan nga koy fitalé est ce ci mutawatir nga koy duggal wala bok da nga nan li khabaru ahad la parce que fii tam mu am ben affaire bu am solo lo xam dañ dañ ko faté surigné extrêmement important yi yëpp yi wessu aziz manam gharib aziz mashhur mustafid khabaru ahad lañ lool lañu tuddé akhbaru ahad wala ahadith ahad wala xabarun waaxid mooy benn bi information benn bi mooy xabar waaxid yu yëpp mooy kenn lañ loolu ci istilaaxu borom xam yi la xam nga xabaru ahad maanaam wala axbaaru ahad wala xabaru waaxid xabarun waaxid mooy singulier bi axbaaru ahad mooy pluriel bi xam nga dañuy wax tamit xabaru ahad maanaam information yoo xam ne ay benn benn ñoo ko solo kooku kenn nit rek la loolu mooy ci langue mais bu dee ci istilaaxu borom xam xadis yi rahmatullah alayhim bu ñu waxee xabaru ahad wala axbaaru ahad information wala ahadisu ahad loolu mooy loo xamante ne maanaam yëggul degré yi mutawaatir bu yeggee degré yi mutawaatir ñu ne mutawaatir moo tax bu xësee ba yegg ci degré yi mutawaatir dootuñu seet ci càllale gi nit ñi ndax dëgër nañ wala déet li ñuy seet rek mooy càllale gi naan ana kan ak kan ak xam ne lii càllale bi am na ñu xoolaat càllale bi am na ñu xoolaat càllale bi am na ñu xoolaat càllale bi am na ñu gis ay càllale yu bari yoo xamante ne wane nañ ni information bi am na te ci génération bu nekk étape bu nekk ci càllale yi gis nañ nit ñu baree bari ñoo xam ne soroon nañ ko ñoom ñëpp mënuñoo dëppoo ci wax lu dul dëgg ñu xam ne ah kon wax ji mutawaatir la bu boobaa nag dootuñu luñ ñu tooti mbiru isnaad yi xool kan moo nekk ci càllale gi boobu dootul amati. c'est extrêmement important que ka bobu lañu xamé né ne amati mais il faut il faut que càllale yi nefi d'abord yaa ngi dégg càllale il faut ñu ne d'abord mais wax yo xamante ne comme li seigne Omar di wax ko xamante ne da ngay dégg ben way di wax expliquer lo xamné yow do xam sax manam yow yow wax ji sa bobu na tellement da ko yag yàgg dégg ba dootoo xamante ci kan nga ko jëk a xamatu lo ci kan nga ko jëk a lool du mutawatir yaa ngi dégg même bu dee nit ñi bari nañ ñi koy wax ah, lu ñu bari bari bari amul importance am na beneen mbir bu ñuy mu mutawaatir te loolu nañ ko bàyyi xel mooy benn wax joo xamante ne moo tax yu ëpp ci histoire loolu tax mu problématique moo tax histoire mënuñu cee sukkandiku ci lu baree baree bare lu dul xanaa ci yi nga xamante ne dañ koo teg ci base xam borom xam-xamu xadiis yi ni ñu tëralee mbir yi ñu doog ci mën a sukkandiku mooy par exemple euh, mën nañ joxe exemple mooy wax joo xamante ne mi ngi xew il y a deux siècles ñun mënuñu vérifier amuñu benn possibilité vérifier ko lu dul xanaa ñu teg balance yu dëgër comme ni borom xam-xam xadis yi di tege balance yi loolu rek boobu moyen mooy bi ñu am pour mën koo saxal si noo amul beneen moyen wala boog mbir mi nekk mutawaatir maanaam ñu gis ne de génération jamono jooja ña bindoon téere yi ci jamono jooja souligné woon nañ ni lii xew na ci ñoo ko fekke woon ñu bari bari waaye boo xamante ne ñoom ñëpp mënuñu koo bindandoo di ay historien te fekk du dëgg après ñooñu geneen génération yi jëlee téere yooyu ci ñoom toxal ko mu sax ne ñooñu ñoo ko bind ba mu yegg si si ñun waaw bu waaw dañ naan mutawaatir la waaye suurul yu mel noonu rek du du mën a ne euh, tey par exemple nañ joxe euh, euh, euh, exemple bu mel noonu ñu xool tey nit ki bu fekkente ne kenn rek a ko solo wala ñaar rek a ko wax dañ naan à tra à partir de kooku loolu mu loolu léegi ci ginnaaw gi la la siiwee tawaatur mais avant kooku ndax wér wéroon na parce que dafa am lu ku ñuy wax ma madaarul xadis tey nit ku nekk mën na moo tax nit ku ne mën naa ñëw nettali comme li yaa di wax rek léegi comme tukulóor yi léegi ñu ci bëri koo ci wax mu ne shérif la fu mu ko teg ñu ne parce que dégg naa seen benn maam moo jóge woon fii nangam nangam et cetera loolu lañ leen nettali après mu bi mu jógee fee mu jaar Andalus bi mu jógee Andalus mu wàcc Mauritanie ñëw euh, ñëw Sénégal léegi après la il paraît que ay euh, kii lañ comme li ma Yaxya di wax Yaxya nee na ma man li ma yim mooy dama dégg benn couleur wax ne apparemment ñun ay shérif lañ ñun waa famille sàngam nee na ca semaine ba ca tegu. nee na ma dégg mboo juróomitu tukulóor yu ko wax dégg am ci ñuy affirmer waaw ñun sax ay shérif lañ maanaam euh, xam nga yooyu yéeme na ala kulli donc mbir yi dafa war a nekk loo xamante ne maanaam euh, euh, information dafa am nu muy saxee information dafa am nu muy saxee kenn du ba information du lu ñuy bàyyi noonu dafa am nu muy saxe bu boobaa mën nañ ni par exemple wax ji de à partir de sëriñ diw la siiwee wala à partir de diw sàngam ci la wax ji siiwee ndax da koo bindoon ci téere bi ñu bari liir téere bi di ko nettali loolu mën naa ne yaa ngi dégg mais avant kooku bu dee kooku ci kenn nit la ko jële kooku jële ko ci kenn nit xadis loolu du mutawaatir ah non lu mu siiw siiw siiw wax ja dëgërul wax joo xamante ne par exemple sëñ Babacar si radiyallahu anhu kese moo ko dégg ci Cheikh Hadj Malick radiyallahu anhu kese moo ko nettali Cheikh sëñ Babacar si radiyallahu anhu Alaaji Abdou Aziz radiyallahu rek nettalee ko ci moom mbir ma doog a tasaaroo à travers kooku nag loolu du mutawaatir yaa ngi dégg euh, gis nga comme nañ joxe exemple Cheikh Hadj Abdou Aziz radiyallahu anhu moom moo moom maa ko dégg waaw mun naa <laughs> mun naa ko nettali moom dafa ni dafa dem ci sëñ Babacar si radiyallahu anhu ne ndax sam mbokk jullit walla boog wax ji nii la mel daal ala kulli xaalin sens bi lii la lii ma nar a wax la ne ndax bu nee la euh, da ngay wax maanaam bu ne assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihina manam ndax ndax bu ne la ñaan ba wu bu fatte wu ma ci ñaan ba yaag may ñaanal nga ne ko waaw wala mba fatiwu ma ci ñaan wax ju mel non dal mu ne ko waaw nga ne ko waaw mu ne li nga wax ndax deug la lu deug mu ne waaw deug la mu ne ndax laaj bi laajoon naa sa bay manam cheikh hadji malik radiyallahu anhu ne ko ndax sa morom jullit bu nee la wu ma ci ñaan nga ne ko wala mbaa yaa may ñaanal nga ne wala wax ju mel non ndax li nga wax dëgg la mu ne waaw ndax saa yooyu julli da wax assalaamu alayna wa ala boobaa julli ñëpp dañ ci daal di dugg ñu mën a maanaam kon xoolal wax jooju bon parenthèse d'ailleurs temps yi maa ngi ciy waxtaan sama mbokk taaliba ndeysaan am na lu ñu doon wax maanaam ko ba ma ci ñaan mu ne ma ndax saa yu muy julli mu wax assalaamu wa ma ne ko est-ce que xam nga wax jooju fu mu jóge mu ne ma waaw ma ne ko fu mu jóge mu ne ma ci Cheikh Hadji Malick sëñ Babacar radiyallahu anhu ma ne ko déedéet loolu xadiisu Abdullah ibn Mas'ud la radiyallahu anhu bu nek ci sahih imam muslim rahimahullah ne ñom dañ daan wax assalamu alayna ala fulan assalamu ala fulaan maanaam salaam di di tuddu ay tour yu bari yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne len dedet bu len wax lolu wax le rek assalamu alayna wa ala ibadillah salihin so lan ko waxe xamal leen ni nuyu ngeen ñaan waaw def ngeen salaam ñaanal ngeen mboolem jul mboolem jaamu yàlla rek bu nekk ci asamaan ak suuf euh, bon léegi ñu tëj parenthèse boobu léegi wax jooju li muy pourtant gis nga à partir de Alaaji Abdou Aziz radiyallahu anhu gis nga ni wax ji siiwe ànd ak loolu xadis maanaam wax jooju fard la xarib la fard la parce lu tax alaaji Abdou Aziz radiyallahu moo ko nettali jële ko ci Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu moom mu nettali ko jële ko ci Cheikh Hadji Malick jeex na lii mooy càllale bi amul beneen xarib la ko ànd ak dañ naan saxeex na wér na waaye du mu tawaatir abadan buñ demee ba fukki fii fukki génération ñëpp di ko solondoo ñu koy waxandoo noonu du ko tax a nekk mu tawaatir abadan benn nit moo ko nettali jële ko ci kenn kooku jële ko ci kenn jeex na da gis nga li ma la bëgg a wax il faut que nga comprendre li ma la bëgg a wax nga comprendre bu baax a baax su information moo tax xam-xamu xadis wallahi alazim xam-xam la boo xam ne dafa ràññeeku ci képp koo xam ne bëgg ngaa nekk borom xam en tout cas au moins base bi balaa ngay dugg ci ay yoo xam ne doo xam lan la et def attention li ngay nettali li ngay déggee ci kii dégg waaw ndeysaan mais ñaata wax lañ lay wax ni la sëriñ diw moo ko wax mu leer na ni du dëgg parce que loolu ni mu wuuteeg charia dafa leer ni mu wuuteeg li sëriñ boobu bind ci téeri boppam dafa leer sëriñ bi bind ci téere yi boppam nangam yow nga ñëw nettali ñu leneen ba pare bëgg ñu gëmloo ne ñu sëriñ booboo ko wax subhaana rabbi la ilaha illallah et puis comme ay wolof lañ dañ koy tasaare ci bu gaaw léegi kon ñu ñëw ci charte bu njëkk bi euh, charte bu njëkk bi mooy lan mu ne fal mu ne xaw mun aw nit nag xat xaddadu dañoo dëxal kon kon ñeenti charte yi euh, yaakaar naa ni jàpp nga ko euh, kon charte bu njëkk bi mooy mbooloo mi nekk ñu bari ñaareel bi maanaam nekk ñu baree bari ñaareel bi mooy mu nekk ñoo xamante ne Euh, euh, euh, dañuy impossible ñoom ñu dëppoo ci wax lu dul dëgg wala ñu juum wax lu dul dëgg ba pare wax ji yëpp nekk même information bi nekk même wax ji loolu mooy ñaareelu condition bi ñetteelu condition bi mooy mbir moomu nombre bu bari boobu nekk loo xamante ne day répercuter répercuter wu ci génération bu ne ci maanaam étape bu nekk ci état bu wax ji information bi même bu fekkente ne dañoo yokk loolu amul loolu mu mutawaatir lay doon mais bu mu wàññeeku ci ci nombre boobu euh, ñeenteel bi ñeenteelu condition bi mooy mu nekk loo xam ne dañ koo mën a laal maanaam mbir mi fa muy teere ji day nekk lu ñu mën a laal ne nit ne la maa ko fekkee wala maa ko dégg mu mën a nekk loolu ñoom ñëpp ñu bokk nag so toxal wax jooju loolu moom mooy mu mutawaatir legui nak condition bu ñëk bi mu ne la wa qawmun manam moy mbolo mi bari mom ñaata lañu wara doon mu ne wa qawmun aw mbooloo qawmu ci mbolo ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim haddadu dañ ko dëxale bi asharatin ci fuk manam dal ah gaay dal am nañ borom xam-xam yu bari ño xam tane dal nenañ dal mbir mi dal fuk la te ñooñu ñu bari lañ ci borom xam-xam xadiis yi boroom xam usul borom xam-xam rahmatullah alayhim ne daal li gën a tuuti ci ñu mën a wax ne wax ji daal mutawaatir la il faut au moins ñu nekk fukki nit euh, loolu kon wax la joo xamante ne solo nañ ko ci Abu Saïd al Istarxi ak ñeneen rahmatullah alayhi moom moom Suyuti loolu la dëgëral et cetera rahmatullah al jami ndax Euh, kon lépp loo xamante ne ñi ko solo matuñu fukk ci xabar ahad yi lay dugg mu ne wax woote lii la daya fi man aj wadu moo gën a jub moo gën a dëgër moo gën a jub moo gën a baax ndax en fait jamo o kasara li ñoo jamo kasara mooy mbooloo moo xamante ne maanaam bu ñu booloowee mbir mi nekk lu bari loolu mi ngi tàmbalee ci fukk boo leen demee ba fukk nag la ñu doog a utiliser jamo kasra yi mu ne wal xawlu am na tamit beneen wax bis nay ci ñaar ashirin yu ak fukk maanaam ci fukk ak ñaar amna tam ñoo xamantene wax nañ ni fukk ñaar la maanaam ay borom xam rahmatullahi alayhi ñu ne fukk ñaar moy nombre bobu non nga xamne mom lañ wax ci ci condition bu ñëk bi na nombre bobu moy li gëna tuuti lool nak ñu ngi koy tek ci li nga xamantene mom la sa borom subhanahu wa taala ne wa ba'athna minhum isnay ashara naqiba ne wa banu Israil dañu leena délégué won manam fukki nit ak ñaar lañ délégué won jëm ci ñoom loolu bu ko defee. Euh, maanaam mooy euh, euh, ñu jëm ci waa Kanaan fële ca Sham loolu nag boo ko xoolee fukk ñooñu ak ñaar naq naqib mooy nuqabaa yi d'ailleurs am na ay ay ay wàll yu tudd noonu ñoo xam ne ay nuqabaa lañ ñoom nuqabaa lañ fukk lañ ak ñaar général jamono ju ne dañuy am ku dee am ku la remplacer. ay wàllu yu kéemaane kéemaane lañ waaw nga xamante ne ñoom li ñu xam ci iblis iblis sax xamu ko ci boppam waaw fu ñu gisee nit maanaam fu ñu gisee tànk nit dëgg tànk fenn bu ñu rombee tànk musuñoo gis nit ki waaye bu ñu ko gisaatee beneen dañu xam ne borom tànk bi mooy diw sàngam ki kii ki maanaam ka ñu gisoon place sànq maanaam ka ñu gisoon mu dëgg tànkam Euh, bi sàngam tànk boobu ñu gisoon diw mii kii mooy borom buñ ko gisee <laughs> ak lu mu yàgg-yàgg xam na bu ñu xoolee nit mën nañoo xam sax kañ lay kañ lay juddu kañ lay dee kañ dañuy xam sax da def àjjana wala déet yëpp dañ koy xam ñoo gaa yu kéemaane lañ wala yu kéemaane kéemaane lañ ñooñu douze personnes lañ àdduna bi saa su nekk dañuy am nag ba tey jii ñuy wax am na douze personnes ñu mel noonu ci kaw suuf ñu ñu kéemaane lañ gis nga euh, mais douze léegi fii euh, ñu ne boroxoxo yooyu ñoom dañ ne bon loolu parenthèse la woon maanaam boo gisee douze personnes yooyu ñu doon leen wax maanaam mooy parce que ñu mën leen a xabaare la ñoom ñu mën a jóge ñu demee ca Sham dellu si waat mën a informer gars yi ne ah gars yi kat xam ngeen ni euh, lii moo xew nangam nangam maanaam muy douze personnes yooyu ñu ne kon nag loolu day wane ni seen douze personnes bu ñu amee ci benn mbooloo day daal di mën a tax ñu mën a xam ne ñii li ñu wax dëgg la kooku nag mën nañ ci wut tontu mën nañ ci wut tontu ndax tont bi biñ ci mën a wut mooy douze personnes yooyu en fait dafa fekk ne dañoo jógee ci douze tribus yi nga xam ne ñoo bokk ci banu Israël kenn ku ci nekk am koo délégué mooy parce que délégué lañ yi mooy loolu mooy da ko xam ne da koy délégué pour loolu rek la mais tekkiwul ne day taxal mutawaatir walla day da ko gën a tuuti mu ne aw ashrina wala boog ñaar fukk am ñoo xam te ne nee nañ ñaar fukk yox kaa yoo xam ne nettale nañ ko euh, ñi wax ñaar fukk lañ borom xam-xam yoo rahmatullah alayhi fi ñu ko teg mooy sa borom subhaanahu wa taala li mu wax ne in a minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atayn soo leen nekkee ñaar fukk ñoo xam ne mën ngeen a muñ di ngeen noot di ngeen gañe ñaari téeméer maanaam ñoom nag ñu ne nekk gi ñu nekk ci lim googu mooy wane ne kon ñoom mën nañoo taxawal jihaad te doy nañ mën nañoo info maanaam ci ci xeex ak ñaar téeméeri nit kon mooy ñoom bu ñu toxalee ab information ba war a ba ba nit ña nanguwuñu ko parce que euh, en fait parce que jihaad bi dafa am d'abord boudé da ngay attaquer pa boudé dañ la attaquer mais boudé da ngay attaquer il faut nga dem nga wax ak nit ñi ba paré ne len dañ lay proposer ngeen dugg ci l'islam buñu bañé ngeen manam nga war len ay preuve ki ne len wala mën nañ waxtaan ñu war len l'islam proposer len ko wax len lan la et cetera argument ya ngi ni nangam nangam buñu bañé nak ngeen proposer len li nga xamantene mom moy Euh, jizya maanaam ne leen da ngeen di teg impôt boo xamante ne dañ leen di téye moom leen maanaam maanaam ñun territoire bi dañ koy préoccupé voilà mais dañ leen di proposé impôt yoo xamante ne ñun dañ leen di garder seen sécurité ngeen nekk ay citoyen normal et cetera tout ça suñu bañee ngeen doog a jihaad ak gars yi kon loolu mooy étape bi léegi lu fait que ñu nekk ñaar fukk yu war a mën a dem jihaad yi ñu ñoom kese loolu mooy wane ni kon ñoom ñoom rek mën na doy nañ pour tasaare inform pour joxe information boobu ci kaw loolu kon dafa fekk ne kon ñoom ah ñoom ñooy xaddu tawaatur ñoom ñooy limitu tawaatur ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoom bu ñu joxee information day daal di mën a dëgër waaye ah, wax ji tamit mëneef na ko wutat tontu maanaam mëneef na koo tontoo ci ne daal ah, loolu daf ko wax ci ne ñaar fukk mën nañoo xeex ak ñaar maanaam mooy maanaam mën nañu xeex ak ñaar téeméer ci ay yéefir ndax alquran ba mu koy wax daf ne zalika bi annahum qawmun laa yaqiluun dafa fekk ne yéefir yi dañoo amulum xel loolu la ko layale mais layale wu ko ne ndax dafay waral ne information jub waaw wala déet ah, kon nettali nañ ko ñaar fukk wa arbaina am nañu nettali am nañu wax ñeen fukk quarante ñoom nag fi ñu ko teg mooy dañu ne borom xam-xam yi loolu rahmatullah alayhi dañ ne sa borom subhaanahu wa taala bi nga xamante ne ci la yónni euh, Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa muy woote di woote di woote di woote ba ñu am ba Seydina Omar radiyallahu anhu di dugg ci lislaam ba mu matal quarante bi ñuy mat quarante ci la maanaam ci après nag ci la ko sama borom subhaanahu wa taala nag ne ko nag yaa ayyuhan nabiyyu hasbuka allahu wa man ittaba'aka minal mu'minin e yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam yalla nak nala doy ak ñi nga xam ñom ñoo la top te bok ci way gëm ñi te ñom ñoy 40 personnes yoy nga xamne sayyidna umar radhiyallahu anhu mo leen matal 40 manam moy kon ñom ñeen fukki doy nañu pour mëna joxe information lolu motax ñu ni baatu 40 bi lolu nak ah amna luñ ci mëna manam euh mënuñu ci sukkandiku complètement pour wax ne 40 personnes rek ñoy doy Euh, waaye maanaam am na ñu ko wax kon maanaam ñu ñu wax ñu tegtaloo fii loolu mën nañ koo wutal tontu tamit mooy ne sama borom subhaanahu wa taala waxul ne ñoom doy nañ leen pour yóbbu ci yóbbu maanaam pour euh, euh, pour nga mën a tasaare l'islam waaye daf laa daf koo bëgg a daf ko wax rek ne ko yow ñii doy nañ la maanaam quarante personnes yi doy nañ la pour nga mën a pas pour nga mën a joxe information mais na la yàlla doy d'abord la wax xasbukallaahu yàlla rek doy na la wa man ittaba'aka minal mu'miniin képp ku la topp ci way gëm tamit yàlla doy na ko loolu mën na nekk lool wala bokk ñooñu nu ñu mënti tool nañ la dimbali lool rek lay tekk ah, aw ay sabaina nettal nañ ne sabaina maanaam ñeent juróom-ñaar fukk la war a doon loolu am nañu ko nettali ci a xam ne rahmatullah alayhi ñun ndax sama borom subhanahu wa taala dafa tànn loon yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wassalaam soixante-dix personnes mooy waxtaara Moussa qawmahu sab'iina rajulan li miiqaatinaa maanaam yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wassalaam dafa tànn loon ah nit maanaam sama borom subhaanahu wa ta'aala maanaam maanaam yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wassalaam dafa tànn loo dafa tànnoon ci biir nitam ñi juróom-ñaar fukki nit maanaam soixante-dix pour ñu taseeg maanaam pour tase gi ñuy tase ak borom bi subhaanahu wa maanaam bu ko defee eh, ndax laan mu ne ndax ñooñu bu ñu delloo ba wax gaa yi ne leen ah gaa yi ñoom ñëpp soixante-dix personnes yëpp saxal ne yàlla kat wax naag gaa yi wax naag ah, ah, maanaam ñun gis nañ yent yàlla Musaa alayhi salaam yàlla wax naag moom ah, kii kat moom yàllaa ko yónni bu boobaa nit ñi daal koy mën a gëm te xam ne ñii ñëpp mënuñoo dëppoo ci wax lu dëgg loolu tam wax la joo xam te ne wax ju dëgër la alaakul waaye loolu tam ba tey Euh, mën na nekk ne ñoom yàlla da leen a tànn rek maanaam daf leen a tànn ñu nekk soixante-dix personnes comme ni nga xamante ne noonu la tànne woon quarante et comme ni nga xam ne noonu lañ tànne woon douze personnes yi maanaam mën na nekk ngir yeneen i cause euh, am na sax ñoo xamante ne nee nañ foog ñu mat trois cent am ñu ne foog ñu mat cent treize ndax mooy ñi fekke woon Badar wala ñi nga xamante ne ñoom ñooy tamit ñuy àndoon ak euh, Taaluuta Euh, mu doon xeex ak moom ak moom ak yonent yàlla daawud alayhi salaam ñu doon xeex ak jaalut ala kulli xaal euh, ku nekk wax na la muy wax waaye euh, li imam as-Suyuti rahimahullah taala mooy fukk doy na parce que quand fukk ci génération bu nekk <coughs> nga xamante ne de génération à génération fukki nit di ko toxal te ñoom dëpp di maanaam mu nekk benn information loolu Hmm, mooy dëppowuñu ci lu dul dëgg loolu moom mooy bu dee xadis la loolu mooy bu dee xadis la mais bu dee leneen mën na bañ a nekk fukk fukk mën na bañ a doy te ko loolu moom mooy li alxaafis ibn xajar rahimahullah tànn alxaafis ibn xajar rahimahullah moom li nga xam ne moom la tànn ci noxbat euh, ci euh, nusxatu nazar bi muy sharx noxbatul fikar moom fukki yi rek moom noom maanaam doyloowu ko maanaam moom moom fukk doyloowul fukk doyloowul benn nombre ci yooyu mais dafa ne rek maanaam comme ni Cheikh Ahmad Shakir rahmalah ni nga xam ne noonu lañ ko gisee incha allah ci jotaay bii di ñëw mooy ne maanaam munuñoo sukkandiku rek ci maanaam munuñoo wax benn nombre bu précis waaye daal mbir yëpp dafay dépendre ci comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee maanaam xaddu tawaatur mbir mi day dépendre déjà ci information bi ci maanaam nature information bi ak fan la information bi jóge ak naka la. naka la information bi toxoo maanaam mbir mi il faut que mu dépendre ci loolu kon ay mbir yu bari la ay yoo xamante ne tënk ko ci lim rek day daal di nekk loo xamante ne dafa compliqué day daal di nekk loo xamante ne dafa jafe amaan na loolu mooy li gën a dëgg incha allah comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee ci wax ji nga xam ne moom la kon incha allah euh, ci jotaay bii di ñëw incha allah ñu daal di yeggale li nga xamante ne moom mooy euh, li aju ci bunt bi bu ko defee ñu tëj ko wallahu taala alam